jàngat bi may am sëñ bi mooy maanaam ñi nga xam ne dañ leen invalidé yëpp loolu jaay doole rek la ñi nga xam ne dañoo validé nag loolu moom dañ ciy sant ñu ñëpp waaye képp koo xam ne dañ laa invalidé moom gis nañ na jaay doole ku mel na Bougane Gueye chaque année moom mu sa bokk maanaam euh, élection chaque jour dañ koy kale te Bougane Gueye kenn du ne maanaam moom mun tam parrainage loolu moo xam moom ñëpp xam nañ ko léegi daal ñu Sénégal moom liñ bëgg liñ bëgg ñu xam ko mooy dof nekkatu fi man mii def naa vingt ans Europe ñii taxaw ñii ñëpp ñoom ñëpp génn nañ léegi nag ñun bu ñu génnee ba ñëwaat dañuy am beneen vision yeewu ba léegi nag il faut que nag maam ñu ñuy bàyyi xel ñun ñii tax parce que ay sénégalais lañ quoi gis nga man ay oto lay jaay damay jaay oto bu ñu ko yombaloon oto yi day yomb mais fi mu oto yi da nga koy jënd ñu yàlla laaj la ay dédouanement yu cher ak yooyu yëpp lépp métti ci yow ba oto bi da nga koy jafee jaay day métti trop nga jaay ko. waaw ñun daal li ñuy li ñuy sàkku sëñ bi mooy maanaam dëgg bi daal dëkk bi ñu doxal yoon parce que jot na ko il est temps parce que maanaam ñu ngi ci 2023 de bu yoon amul ñun dañu dem na ñun duñ léegi dañoo war a yeewu quoi dañoo war a yeewu ñun dem nañu extérieur ñëwaat ba ba xam ba jis di développement xam lan mooy développement léegi développement bi nag ñun dañoo war a ñëw indi ko transmettre ko Sénégalais yi quoi moo tax il faut que maanaam affaire jaari jaar yoon sincérité ak honnêteté. di dox ci dëkk bi quoi. Bassirou Diomaye Faye koy valider Bassirou waaw Bassirou Diomaye Faye ñun kontaan nañ ci trop parce que valider nañ ko loolu mooy droit quoi euh, taman jàpp naa ne da daa def ay pexe ba jàll daal bu fekkoon moom kese na bu fekkoon te ne maam deful benn pexe du jàll fenn parce que ñun xam nañ li daw ci dëkk bi quoi jaay doole rek moo fi am ñëpp dañ fi ay état bi dañuy jaay doole quoi moom nag dégg naa dafa dem ci diaspora bi ñu defaral ko. waa pare naa maanaam doublon yi mu amoon mu jël mu jël stratégie dem dem jëlee ko ci diaspora bi moom nag il a bien fait ndax booy xeex koo ne maanaam dafa bëri ay affaire ay xeex bi maanaam xeex non conventionnel lay def Macky Sall la xaw ma mais xeex bi non conventionnel lay def léegi nag il faut nga def ay stratégie léegi nag xam naa moom nag comme que ñoom duñu ay dof ñu dem jël seen stratégie boobu sinon man jàppoon naa ne bu ñu deful woon loolu dañuy daanu yaakaar ne na bokk ci élection yi. waaw bien sûr pourquoi pas. lan moo koy teree toog te nee nañ parrainage moom moo gën a jafe. léegi la ci des lan la ay ay ndax sénégalais nga ak ay maam ndax cas judiciaire yooyu yoo xanaa kenn du ko ci téye. loolu nag bu nga ko moom man damay ñaan yàlla mu jëlee leen fi ñoom ñëpp. yàlla lay laan ci sa saa si mu jëlee leen fi ñoom ñëpp. Kaaw Mimi Touré Bougane Gueye euh, Abdourahmane Diouf. waaw ñoom ñu daan leen kale recalé gis yeneen leen bàyyi. waaw jaay doole la grand. jaay doole rek na ko ñëpp wax mu leer quoi maanaam fii jaay doole boo fi am te fekk ñu ngi jaay doole moom dëkk bi du avancé du dox dañoo bëgg ñu teg affaire ci yoon quoi moom. honnêtement bi mooy loolu rek. moo gis daal moom moo ngeem Amadou Bakay yeneen gars yi bu ngeen ko fay jëlee affaire du yomb de waaw oh, du yomb moom wax dëgg fa yàlla du yomb. billaahi ah du yomb parce que ku am doole ak amul doole du yomb ñeneen ñi amuñu doole seen làmmiñ la yor ak seen ak seen xalaat ak seen xel. Moïse daal am na doole am na lépp noonu la fa demee nag. te jàpp nga def bu teg Amadou Ba. ah xëy na bu ko bëggee teg mën na ko fi teg ah mën na fi teg tamit Amadou Ba ah policiers ñoom ñëpp a yem man ci kenn xam nga laa gëm sama teg teg ama engins bi may teg laa gëm góobamu ci Samba góobamu ci ma Demba voilà. mais seetlu nga lu xew ñu bëri ñu ngi euh, ñaawtu li nga la ñu ko déroulé. ah ñi ñaaw ñoo ñoom la man parrainé ma Samba parrainé ma Demba. voilà sama engin bi laay parrainé mhm. voilà merci waaw parce que moom mooy suturloo quoi ñu jox ma dara ma ñu ma cent franc ma xëy maa ngi liggéey sama bopp mhm. jëlalu alal jàmbur ma kenn sama bopp la laay gëm gëm ma kenn. am politique yi am na yoo xam ne dañuy ñëw wax la li tey suba ak ñeneen ñi wax la lële ma ànd ak politicien ba sonn sa waay gis ma ci résultat ma bàyyi ko. ànd mhm. naa fi Seye Gueye Seye Gueye te mu njool ni xam nga ana moom ba muy. loolu moom boo xoolee ñu ngi koy door a gis ñu réew mi quoi loo xam te ne da waa ku la neex daal nga dem ku mu neexul daal doo dem man loolu laa gis fii quoi. am na ñu bëri ñoo xam te leen kale te loolu yoon am na ñoo ñu ngi si biir kaso bi ñu bëri ñu ngi si biir kaso bi tëdd foofu noonu mais ñooy ñooy nañ bokk bu ñu lu baax jàmm si réew mi nañ bàyyi ñëpp ñu bokk quoi ñu loolu lay ñaan yàlla quoi te bëgg nañ tamit aussi tamit euh, élection yi di ñëw nii xam mu gaaw ñëw quoi ku nekk nekk si jàmm quoi événement yi tamit commencé waat parce boo xoolee boo xoolee essence yi lépp dañ ko kale événement yi bëri dañ ko kale kenn nangutul investir sa xaalis boo xoolee xoola parc ni fi nekk yëpp kenn nangutul indi oto parce que xam nga la moo tax parce que dëkk bi instant yi kenn kenn am kenn nekkul en kenn ko kenn nekkul stable quoi xam nga lépp dañ ko kale ñaan nañ yàlla xam nga lépp nekk dox si jàmm daal waaw loolu lay ñaan yàlla quoi. monsieur Diomaye mhm. waaw loolu rafet la mais mais leeragul carrément quoi wala. waaw alhamdulilah yàlla na génn parce que jeunes yi jeunes soxla nañ ko quoi. Mhm. waaw parce que mënoo munoo kale Sonko par kale kale Bassirou Diomaye Faye waaw ñaanuñu yàlla loolu dañu bëgg moom mu dem daal waaw non pare nañ pare nañ si loolu mm-hmm. waaw parce que dañu bëgg changement quoi dañu bëgg changement parce que boo xoolee euh, comme lu nekk Sonko mu mu ngi si sa waay quoi mm. waaw parce que bëgg nañ tam mu dem quoi mm. bëgg nañ mu dem waaw jotuñ ko euh, càmbar. Mhm. xam nga si nekk. waay dañuy génn di di dàmpaaxu naan euh, affaire waaw maa ngi dégg wax loolu mais xam nga tamit kel tam boo koy joxee da nga ko war a càmbar ba pare xool lu ci nekk a pare balaa nga koy joxe. Mhm. mais loolu yëpp mun na am ay erreur quoi. Mhm. mooy comme lu ma la sànq rek affaire kale la quoi kuñ bëgg mu jàll ngay jàll kuñ bëggul mu jàll doo jàll. waaw loolu moo fi nekk. waaw buggante wi waaw bëgg nañ mu jàll quoi parce que nit social la quoi. gis naa loolu dañ ko kale quoi mais wax dëgg yàlla bëgg nañ ñun jeunesse parce que boo xoolee social lay dox quoi lépp loo xamante ne mu ngi si dëkk bi su lu kale moom dina dina dina dina taal otom dem dox loolu quoi ay tibb ay tibb suuf ay lu ne lu nekk mu ngi koy def quoi jàmbaar la quoi waaw jàmbaar la moom. si biir moom lu ñu métti bëri na quoi parce que fii moom lu fi manqué bëri na trop trop trop trop am na ay jeunes yu bëri yoo xamante ne ñu ngi fii toog liggéeyuñu bëri na xooloo xooloo nit ñi dee si gaal gi. ah ak si ak si kii bi euh, comme kii yoon Nicaragua bi est-ce que wax na si waxu si kon loolu moo lay woon ni loolu daf daf ñu naqari quoi ñaari jeunes ñoo fi gën dem bëri na ah ñu ñoo ngi ne ay ouvrier la ay soudeur la ñu ngi si waar bi nii xam nga nekk si mais mënoon nañ dem mais xam nga rek dañ bëgg lu baax mu tax ñu toog ma weñ bi seer na trop seer na trop sax yooyu président bi di ñëw waaw lu lu mun war def nag bëri na trop quoi parce que lu fi nekk si réew mi loo xamante ne dafa kale quoi bëri na trop trop trop waaw lépp cher quoi essence yi amul gisoo gaz amul essence yi gaz da ngay wër bu sonn doo ko gis essence yi pétrole bee ngi ñëw lu nekk mu ngi ñëw si xam nga bëgg nañ jeune bëgg nañ daal réew ku nekk gis sa bopp quoi nga xam ne da ngay liggéey am salaire di wàcc di noppalu am sa kër jeune bu nekk am kër quoi mais fii ba da ngay gis koo xam te ne maanaam fii da ngay dund bële du am du am kër du am terrain du am dara. ndax honnêteté quoi. ak sincérité. ak bañ a jël alalu jàmbur jël alalu jàmbur boo ko dee def doo mujjee fu rafet ñoom ñii ñëpp xool ku ci lekk alalu jàmbur xaaral ba muy dee bu dee bu dee bay dee ba dee ñëw di nga xam ne jëloon na alalu moo tax il faut que ñu jub ko il faut ñu jub ta sàmm maanaam jikko yi jikko yi maanaam moo ci ëpp solo kenn ku ne maanaam li nga yéene sa bopp nga yéene sa moroom. parce que réew moom sénégalais yi ñoo koy defar dëkk bi sénégalais yi ñoo ko war defar Macky la tuuti ay Macky Sall yi tuuti lañ ci bariwuñ ci quoi liñ ci war a def léegi ñun ñoo war a yeewu bëggante suñu biir nekk benn di ànd boo gisee lu salte sax ci mbedd mi nga for ko sànni ko def ko ci mbalit bi te te état bi tim teg ay ay disposition ay pôle mbalit boo boo nga am foo ko sànni waaw civi civilité quoi li ngeen ma manque de li ñuy wax manque de xaw ma civilité la xaw ma maam moo fi bari quoi non civilité pas civilité civilité la ñuy wax manque de civilité loolu la ñuy wax quoi léegi nag loolu nag lool nag pour ñu dindi ko il faut que ñun ñoo koy dindi ñu sénégalais nañ bàyyi fee état bi ay état bi nañ leen teg fële quoi te ñun ñu jàppale suñu réew jàppale boo waree boo boo bëggee sànni dara nga dem cimbali nga sànni ko boo bëggee saw nga dem ci douche nga saw maanaam boo gisee am na xadis sax bu naan maanaam yow boo yëkkatee ab mbalit ci suuf maanaam loolu sarax la. kandidaat yi war a tànn ana ñan seen yi. ah rek gannaaw. bi leer na. yow dañ lay voté budget chaque année xaw ma ay 7000 milliards xaw ma maa ngi dégg ñu naan xaw yokk nañ ko wala xeet yooyu mm-hmm. léegi yow yow yow yow li la voté fexeel ba mu ñëwaat Sénégalais yi loolu rek loolu rek mooy objectif bi xaalis bi nga xam ne moom la état bi dajale Sénégalais yi. ba mu mat loolu da ko war a delluwaat Sénégalais yi rek parce que ñun Europe Europe bi ñu fa nekkee loolu loolu la xam foofu quoi gars yi dañuy dajale xaalis dañuy dajale ku ne joxe ay taxes ay impôts bu ñu paree xool ñi nga xam ne ñoo gën a pauvre ñu def leen priorité ba pare après bu desee ñu jox ñi nga xam ne ñoo ñoo cotisé woon quoi. lan nga Sénégal yi jëlagul seen carte électeur ñu war ay euh, weer na ñëpp dem jëli bu ñëpp voté bu taux bi àggee ay soixante-quinze pour cent même bu ñu sàccee duñu gagné. même bu ñu sàccee du ñu gagné na na ñëpp dem voté na képp ku am carte électeur na nga dem voté ji bu bu bëree rek maanaam euh, ñoom pour ñu sacc day jafe quoi mais bu bëriwul pour ñu sàcc day yomb te man hold up laa fi gis fii hold up électoral laa fi gis man bu ñu góor hold up électoral bu fi am hold up électoral du am deuxième tour premier tour lay jàll. waaw bu fekkee bu fekkee li ma yaakaar loolu la. xaw ma nag quoi xam ñun dañuy dañuy xalaat di analyser lii ñëw yàll rek moo xam quoi mais bu fekkee ëllëg électoral moom lañ nar moom premier tour euh, waa ji day gañ ma ko sax kooku. Sonko ay mbiram mu mel ni euh, du bokk ci euh, la ci Afrique gi yëpp. Afrique gi yëpp regret la ndax kooku panafricain la te dañ koo jaay doole. justice wax na maanaam nañ ko jox ay yëfam. état bi bañ koo jox yëfam conseil constitution ñëw ñoo ànd ak état bi kon dañ koy jaay doole ko waaye nag nañ xam ne yàlla rek moom am doole quoi. jërëjëf ndax réew mi métti amul dara bëgg nañ changement lañ bëgg quoi si dëkk bi loolu lañ ñaan quoi. oui waaw daal wax dëgg yàlla moom nuru nekk campagne yombu yomb quoi parce que du yomb parce que boo xoolee rek lu noor dévité nii rek après bi loolu mooy continuer quoi te ñaan yàlla ay fitna am si quoi. mais ñaan ñu yàlla loolu quoi parce que boo xoolee campagne lu ñu dem bu ñu waaj am néewam loolu laa gis campagne yu métti métti laa gis waaw. waaw Pape Djibril la ak engagé quoi ñaan nañu yàlla tamit aussi xam nga mu def dara si mi quoi parce xale la jeune la xam na lu xam na lu xale yi bëgg voilà. waaw mais non ñooñu koy loolu koy kenn werantewu dañuy job ñoom rek mm. dañuy job ñoom rek mm. waaw mm. ñooñu moom bu ñu maanaam comme lu ma la sànq rek nu ñu bëggee ñooy bokk ñooñu ñooñu ñooy bokk fala force loolu moo fi am quoi waaw ñu bëggul bokk duñ bokk. Sénégalais yi war maanaam nañu tey rek quoi xool si candidat bu baax ñu ñu tànn ko quoi ñu xool koo xamante ne am na ambition pour maanaam defar dëkk bi quoi ñu xool bu baax fu ñu teg seen tànk quoi mais pas ñu leen jox benn junni wala benn dix mille ñu dem votel koo xam te ne arrangé wu leen quoi xool bu baax surtout ngay votel quoi. waaw yi jeex na waaw mais. waaw non maanaam ku ku ku ku a dem jël sa carte dama dama ko quoi. waaw waaw nga xool nga teg sa tànk loolu la quoi ah. yàgg na man pare naa pour voter. waaw waaw muy jël maire bi ba léegi. déboo laa gëj a gis. waaw. nga jàpp ne dañuy trahir li ñëw début bi dañuy ñëw bu liggéey bu nee ba ci biir commencé di uti xaalis di tabax ni gàlle du après du ñu la jëlee kër. waaw loolu hmm. euh, loolu kaddu gi euh, ndaw ñi nga xam ne ñoom euh, yi ñaax laa ndaw moo amul métier na nga xoolee loolu ba nga jàng sa jàng ku toppatoo sa liggéey. Hmm. fii moom boo fi toppee leneen rek. ndax ñii dañuy wax di tey suba ñu waxal leneen boo xoolee kaso yi daa jel jël dëkk bi ñëppay sàcc fajar gi mais dañuy xëy di xëy mais ñamatu ñu liggéey dañ leen seen xaalis waaw mooy loolu. li ñu war a liggéey dama bëri ba ci policier nekk ci tali bi wala bi bàyyi dem gars yi taxaw seen anciens yi dañoo ñu jàpp la engrais la bala nga dem. ki a teg 2024 25 février maanaam yàlla nga yërëm yàlla nga yërëm sénégalais man laa bëgg nga yërëm sénégalais quoi bu xool sa bopp de yërëmal sénégalais te sénégalais nga sonn de fii ngay gis ay temps mais bu duggoon ci banlieue bi nii ay Pikine ay Guédiawaye ay Gàddaay ay Gunaas ay Ñetti Mbaar ay Yëmbal da ngay bàyyi àdduna añoo bu ñu xëyee bu ñu toggee añ si la ñuy tibb reer mais boo déggee sax gën bi xëy lekk say pizza ak say tacos ak affaire yooyu noonu mu neex loolu la woon ñaare mais tey gars yi dañuy dund lu métti de maanaam lu garaaw waaw da nga génnoon nag doo xam loolu yow. par ñu bëri jàpp ne askan xam nga affaire Sonko ak man affaire état Sonko man du ma ci wax Sonko lu mu def xaw ma ko Macky Sall moom du ma Sonko Sonko moom nit ñi ñoo ko bëggal boppam xam nga nit ñi bu la bëggee rek jeex na même boo dee inoon sa xaj sa xaj sax gars yi ko nit ñoo ko bëgg. kon ku Sonko. bu wootee gars yi da nga voté kenn gars yi nga koy topp mais est-ce que Sonko dem du ñëw gën a pire ndey Macky Sall gën a gën a gën a topp Macky Sall saa Macky Sall du question contre liggéey de jeune bi amul liggéey rek gars yi dañuy wax Macky Sall bu ngeen liggéey ba ñu mu àndal ñoo bëggul mu liggéey ñoom ñoo koy lekk ci suuf voilà loolay problème bi Macky Sall bëgg na gars yi liggéey de mais ñi mu àndal ñoo bëgguñ gars yi liggéey loolay problème bi. taxawaayu ndaw yi ci élection yi di ñëw lan la pour changer système bi. ndaw yi daal maa ngi wax benn affaire. affaire yi urne la da ngay sa carte xool ku nga boo nga dem ci kii nu mu tudd sax Alpha Thiam ak Diomaye ak Amadou Ba ku la xool ku la neex nga votel ko mais lépp loo koy voté da nga mais bu xeex bu xuloo bu ànd ak kenn neex. ñi xam ne également dañuy ko voté ku la neex kese la kese. kàddu gi ñaanal jëpp jàmm. ak salaam guddi fan ak yaram ñaan ak kilifa diine ñëpp jàmm loolu laay ñaan